ay maqaam yàllaaw bisimil ilaay ci barkeb say ci faddilu mi yàlla dool dinoo ay maqaam yàllaaw léeg-léeg dañu gis ci jamono mm-hmm. nit ndax tey jii nit war naa jël ay bu nit mm-hmm. wala juumteg nit. Mhm. di ko génnee di ko weer li gars yi xewal ci réseaux sociaux yi. Mhm. maanaam nga def benn affaire ñu jël ko dugal ko ci réseaux sociaux yi. Mhm. dana waxtaane ko fii. tas ko fii. ba mu jural la musiba goo xamante ni tey jii yow mi nga xam ne yow yaa ko def yow leer na lii buñ la ko defoon wala ñu def ko kenn ku bokk ci saw askan. mu jaral la xaru ji. est-ce loolu war na ndax yàlla ni tam. waa xam nga léeg-léeg da ngay fekk mbedd muy wax ci lu ënd. <laughs> looloo gën a garaaw. medd muy wax ci lu wan. ënn xam nga luy ënn. wax ñu. cere xam nga bu changé gu baa bol bu nuy sunguf. Mhm. di ko def ruy baa fonde mu changé gu da naan dafa ënn. dafa ënn xam nga loolu garaawut. Mhm. <laughs> boo defaree soo fondee man nga lekk mm-hmm. boo boo ruyee man nga lekk médd mm-hmm. mm-hmm. nag mënoo dabu daal waaw médd mënoo ci am loolu ndax medd sax yaa nga ca leneen ak leneen nga ci te ah, médd beneen affaire la déglul li ma lay wax baax <laughs> est-ce que bu baax li ma lay wax nit ku bon mënul wax ci nit ku baax lu baax nu bàyyi xel loolu hmm. <laughs> nit ku bon mënul wax ci nit ku baax lu baax ci ñépp nag bu dee sikk sunu maam aadama njëkk sikk wallaay ndeysaan ñun danoo am defo ñun mhm. ndax sunuy maam dafa amoon defo mhm. defo googu yàlla nangul nu ko mhm. wax ci alxuraan ni wàcceewu ma leen fi pour ngeen ni weeraati wàcceewu ma fi pour ngeen ni xeebaati wàccewu ma fi pour génne xastante waaw man xam nga ci weerante la ñuy wax <laughs> weerante sore na de ñaari point laa lay tegal du danu wax ne su kenn njaaloo benn nit gis ko dóor nañ la téeméeri yar yow mi ko wax te xam nga ni dëgg la yow mi ko wax de te xam ni dëgg la sax xam nga ñàkk bañ a fan la tàmbalee wax dëgg ju sa yoon nekkut <laughs> ak leer la asi wax nga dëgg wax dëgg ju hmm. sa yoon ñàkk a maandu waaw wax kon ñàkk maandu dukki na fa la tàmbalee <laughs> ñàkk a ngi tàmbalee nu jox la ñaari junniy kayit nga def ko ñeenti junniy cinq mille <laughs> ci cib dénkaane laa la wax de cib dénkaane <laughs> gis nga sëriñ bi hmm. dafa am lu yàlla di nëbbal jaamam hmm. ñun ñëpp a sikk man moom dama koy faral di wax man balaa ni may kaa may kaa sama bopp <laughs> kenn du la tës waaw ndax lu tax mooy koo gis muy tës am na lu mu tës ci boppam mm-hmm. ndax am na ay tis mm-hmm. àdduna mettiwut tey am na ñoo xam ni lu leen neex war nañ ko teg seenu der mm-hmm. waaye imagineel ni dama seetaan benn internet gis ni wax ku naan imam Pape Hann mhm. oustaz Pape Hann mooy coowam léegi mbaaco waaw mhm. ak yeneen détail sax yu ma dégg ci benn soxna di wax lu ñaaw waaw ku tàntal yéntu yàlla Muhammad junniy tànt bay jéggi frontière di ko defe ci àdduna fu ne mhm. waa lu tax yow loolu daawoo ko yóbbu ci live di ko live laa ilaaha illallah <laughs> kiy wax ci yonent bi sallallahu alayhi di ko tàntal bay jéggi frontière di ko Gàmbi di ko Amérique mhm. lu tax yow daawoo ko live di ko kaa pourtant de kaa la de mhm. lan moo tax kaawoo ko te lu mat kaa la waaw jara kaa waaw waaw ki nga xam ni daan na def weeru koor ñépp di lekk di raay seen biir muy def cinq minutes man ma masuma gis Pape xaw ma Pape Hann masuma ko gis mhm. <laughs> xaw ma ko mhm. waaye waxuma ngir Pape Hann tey mhm. <laughs> keneen ak keneen a tax <laughs> te est-ce que xam nga ni jamonoo ngi ñëw ci kanam billaahi baatin dana fi raw jaasi ju ni jam nit ci fàtti nit waaw nit ñi bu nu bàyyiwul tooñ mhm. daanu mujje mel ni xar yuy dee baanu raw sax xar yuy dee mhm. man nit balaa malay lay ci lu bon damay xool sa lu baax mhm. man fëkk yóbbaalew su ma la fekkoon si lu bon sax dama ciy maandu ndax li may gis ci yow lu baax dana tax ma xam ni kii du yow mhm. sëriñ bi mhm. gis nga ustaasa ku dul ustaasa yan mhm. bu dee sikk ñépp sikk wallaahi nit di wax ci nit te bàyyam ma ko jur sax moo gënoon sikk ca xamuy wax wallaahi yàlla bari sutura rek xanaa xamoo nit jikkoom ji mu yor rekk lay toogaane yàlla wax de yàlla nee na wàcceew ma leen fi pour ngeen ci weerante yow nga fekk koo xam ni ci ñoñu lislaam la bokk su jubee ci la bokk su jubul ci la bokk bu masee tuubal benn nit ci la bokk mm-hmm. su tàmpee ci la bokk mm-hmm. li ma ciy déranger nag mooy bu di ñenn ñi di cokkaas yenni wax yi no kenn du leen défendre mm-hmm. ndax ñun jullit ñi ñooy dooleel vie yi ñooy aimé mm-hmm. ñoo naan man de xamewuma ko woon ni mm-hmm. ñoo naan nàngam sàngam ñoo koy dàq waaw mu doon lu doy waar nag man mu doon lu ma dérangé nag barke Seyduna Muhammad lu ma dérangé la nag lu ma dérangé torop la man moom damay wax ni xaw ma Pape waaye man maa ngi koy masawu coono lool sëñ Talla mm-hmm. dafa am ñu coow jik mm-hmm. ak ñu mu jigut <laughs> waaye man daal nit ki nga xam ni tekkiwul dara sax looy teg ci am deram na ko seet buy dëgg ak bu dul dëgg nag mm-hmm. nit ki tekkiwul dara de rawatina ku ko yor njaboot ku pokk ci biir point yi nga xam ni dañu koy déglu nawloo ko mhm. mu am lu bare lu mu servir ci diine mhm. waxul ni sama maam nee na waxul ni sama baay nee na xoolu lenn lu mu doon waa léegi yow kaawoo ci loolu de kaawoo ci mhm. te mu koy dund ay at masoon ni ko téeméeri dërëm a ngi nii yow nga ni danga xam sikkam <laughs> sikkam moom nga xam ba mu tax aywa nanu dund balaa nii dee ñoom Hmm. nanu dund balaa nii de hmm. man nag li ma jaaxal nit ñi léegi doonu am fit torop même buy bu lanuy wax même bu doon dëgg la sax hmm. dafa jekkul nit rek man di sañ taal bu nit ñëwoon ne ma diw laa bëgg a kaa ma ni ko man ni bëgguma ko dégg yàlla na ma yàlla musal ci loolu ndax xam nga la lan moo tax mooy la diw làmboo la yàlla mi ko xamal yàlla mi ko suturaal mhm. yàlla mi ko teg comme fi mu ko teg mhm. ba man man man ko xool te duma gis ci moom loolu mhm. yow nga ni lëñbët nga ko ba xam ko yamatoo ci nga ni da wëlbatiku di ko weer ah bu la jegee jàmbaar nga dëgg-dëgg <laughs> moo tax dégg naa kenn ku naan oustaz Modou Fall muy ñaan naan nan ma dimmali sax kaayi na suturaal ja jaam yooyu jaru ko jarul wax loolu jaru ko yàllaa ngi fi. yàllaay saafaraal boppam. wallaay mooy saafaraal boppam. jaru ko. Mm-hmm. billaahi jaru ko. waaw moom moom jaru ko. Mm-hmm. man nag wax naa ko ay nit ba tàyyi man dund américain laay dund. Mm-hmm. man li ma yii gars yi di wax. ndax man bu ma diw dafa sikk man leen man sama sikk doy la ak ku war nga waaw man newuma ci leneen hmm. man sama sikko doy na ma hmm. waaw mu nee ma diw day tux ma ni man managuma ci wax dara ndax xaw ma ba xam naa tuxam déet hmm. ah kese ci àdduna nit ku baax sa bopp na la doy ku ci ne am nga sikk nanu bàyyi ñii te lii ma lay wax nii nag cokkaas la de xam nga lan la ñu bëgg éliminer ak éliminer ustaas yi ñu tëj seen gémmiñ yi ngir xale yi am indépendance damaa la ko wax fii nag lañ ci yàlla musal ngi noonu ci barkeb sayxi faddilu buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaay barkeb say ci mi buru yàlla doldinoo ay maqaama yàlla Bienvenue